sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sayxul xadim huwa sayxul kabir almujahidul akbar allati afna xayaatuhu bi xidmati nabihi almustafa sallallahu alayhi wa sallam wa qad baayaa nabi bi xidmatin ma xaalahu أبايع اليوم رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله وفا mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu nuyoob jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyoob taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi yokk kattanam ba mu mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul tam ànd kook mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa yépp mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi ak mbooleem taalibe yi di ziyaare bu baax mbooleem ahlu jataay bu tedd bu màgg bi ci bis bu tedd bu màgg bi nga xam ne moom ngeen di amal muy bisub ndigal day mel ni Cheikhul Khadim day wax ne bu leen di def dara te aju leen ko ci ndigal ndax ndigal kat sart la boo xam ne dana nangu jëf kon day mel ni bis bi bisum ndigal la bàyyee ko ca Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu joxe woon ndigal ñu ciy fàttaliku waaye di ci sant Cheikhul Xadim Cheikh Ahmadou Bamba di siyaare bu baax sunu waajur yu tedd yi nga xam ne ñoo ngi ci biir baas bi bu ñu ci tuddee sëñ Abdoulahat mi nga xam ne bi ñuy dugg ci baas bi moo doon fekk mu doon waxtaane xam-xam di jàmbaar noo koy nuyu bu baax di ko ziyaare di ziyaare mbokk yépp day mel ni fii barab bu nu miin la barab bu nu xam la kon day mel ni nuyoo bi mën naa bañ a gudd buñ ci tuddee sëñ ab Lahad moomu rek dana yóbbaale ñëpp di nuyu sunu waajur yi nga xam ne ñoo nekk ci baas bi di bu baax sëriñ jib mi nga xam ne day mel ni démb ci guddi bi biñ dajee ba léegi yitteem yépp da ko def ci rek ñu jël fi kàddu bu doon ñaari baat la sax ñu wax ko fi kon day mel ni noo ngi sant yàlla bu baax borom bi subhanahu wa taala di ko sant bu baax ci def gi nga xam ne def nañu ko ñu nekk ay doomu adama yàlla mënoon na noo sàkk ñu nekk ay bàyyi ma wala ñu nekk leneen te bu booba dunu ci man dara waaye dañoo sàkk ñu nekk ay doomu adama ba noppi mu teral nu wala xadd karam na ba nii aadama kon yàlla moo teral xeetu sa sayidina adama muy bannu aadama yi di sant bu baax cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba xadimu rasul mi nga xam ne moonu tànn boole ñu ci boppam day mel ni mag mu baax mu ñuy wax sëriñ maxtaar mbay kayre daana wax sëriñ tuubaa ne ko mbakkee ëpp ngëb sëriñ te boo doon ab sëriñ mëtanu lay taalibe waaye nun nga am kon day mel ni képp ko xam ne bokk nga ci biir tànneef ak Cheikhul Khadim googu jamono bu nekk war nga di sant di delloo njukkal Cheikhul Khadim sëñ nag niñ koy sante ak niñ koy delloo njukkal bari na ay fànn waaye jataay bi benn fànn la ci fàttaliku ak sant ak delloo njukkal Cheikhul Khadim bu ma nee sëñ Touba yi dañoo tànn Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari ba muy wax ci tànn googu nga xam ne sëriñ tubaa dañu ko tànn dafa wax ne sëriñ tubaa dañoo tànn iqtaara maxtaarahu lmuxtaaru neamalahu faxtaarahu wal walmuxtaaru nga xam ne dañoo tànn waaye ci biir tànnee fag sallallahu alayhi wa sallam la ñu tànnee yonente bi alayhi salaatu wasalaam di tànneef boo xam ne sunu borom moo ko tànn ci coobareem def ko mu nekk xaatimul anbiya di imaamul mursalin yàlla jiital ko teg ko ci kanam daan ne ku ma tudd man yàlla te tuddoo sallallahu alayhi wa sallam nanguwul daal di wax sax ne man yàlla ak samay malaayika dañuy julli ci sallallahu alayhi wa kon yéen jullit ñi digal naa leen ngeen di julli ci moom inna allaha wal malaikatuhu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon digal nañu ko rasulullahi moomu moo tànn nag cheikhul xadim sëriñ tubaa nag tànne ñu ci biir tànneef ak sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi dafay mel ni sëriñ tubaa mu nga xam ne moom la ñuy tuddoo di ko woote woo jamono bu nekk dana yell dana war ñu koy fàttaliku ndax bu nu ko fàttalikoo rek xool ak dundam xool liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko sallallahu alayhi wa sallam danañu xam ñun fan la ñu mën a jaar ngir am dëgg-dëgg li nu bëgg xam ngeen ne Cheikhul li mu am lépp ba bànneex beeg neexaay beeg lépp ñëw nekkul loo xam ne rek dafa tëbëtëb am ko waaye dafa am fu mu jaar am lu mu def am fu mu dem ba tax tey jii daraja ak maqaama yépp daje ci moom moo tax mu wax ne man Ahmadou Bamba sama daraja jamono bu nekk day gën di yokk di gën di fés di gën di leer darajati taalu wa laysa tan xafit wa man naxa minal wara xabdu xafit nga xam ne jamono bu nekk rek man Sëñ Tuubaa sama daraja day yëkkatuku dafay gën di leer képp koo xam ne it damay jiima yëkkati ci mbindéef yi day yëkkatuku waaye xam nga ne liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko alayhi salaatu wasalaam moom sëñ Tuuba moo ko may loolu kon bu nu waxtaanee tuuti ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi liggéeyal na ko sallallahu alayhi wa sallam ak nekk gi mu nekk jëwriñu sallallahu alayhi wa sallam dana nu xam nun fan lanu mën a jaar ngir doon dëgg dëgg taalib sëñ Tuuba wala ñu mën a nekk jëwriñu sëriñ Tuuba ndax kat sëriñ Tuuba waxoon na sëñ Hamsatu Jaxate ne ko Hamsatu mu ne ko Mbakke mu ne ko taalibe yi ak alal yi ak njébbal yi ngeen may jox bëgguma ci dara hamzatu taalibe yi ak alal yi ak njébbal yi bëgguma ci dara hamzatu mu ne ko mbakke mu ne ko sama bëgg mooy ëllëg yowmal xiyaam bu yàlla saa borom teewee rasulullahi teew saalexe nay ak xutbu zamaan ak borom jamono yépp teew bu boobaa bu rasulullahi jógee aras jëm ca barab ba ñuy rammoo ba ma dogale ko fàttali ko bayit ba ma ko waxoon ne ko antal karimu annal xadimu dëhrat udimu fii ka shana'i ba rasulullahi ne ma ahmadou bamba rof darapo bi ne ma jógo ramm nee na taalibe bu nekk ci yéen am sañ-sañu jóg poñe ma nangu drapeau bi ramm te muy force sëñ tubaa nee na loolu mooy ak bëggam kon bëggam googu nag buñ ko bëggee représenté fan la ñuy jaar xam ngeen ne sëriñ tubaa njëkkul jamono sëñ tubaa mujjul jamono waaye taxaw na wax ni man ahmadou bamba yàlla jox na ma loo xam ne mësu ko jox kenn te lii ma yàlla joxit te mësu ko jox kenn àdduna du soppeeku wala àdduna neex ba yàlla joxati ko kenn ilaya qaada allahu ma lam yakun wala yakunu abadan abadan li ni nga xam ne loola loo ca tànn rek loo tànn ci mbirum Sëñ Tuubaa na nga ca fekk lu ko yàlla jox te kenn mësu ko am te kenn dutu ko am loolu moo tax nag jëlal benn bi muy xaadimu rasuul sëñ tubaa njëkkul jamono wax naa la ko sëñ tubaa mujj jamono waaye lan moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam tànn ko mu nekk xaadim rasul te sëñ tubaa nee na man ahmadou bamba yaxar yëppuma kenn ñaanuma kenn ojaas dewuma ci kenn di sàkkoo ko liggéeyal waaye rasulullahi moo gis sama daraja ak sama tedd nga dem ca sama borom ne ko ahmadou bamba dama bëgg nga def ko mu nekk xaadim bi nga xam ne moo may liggéeyal ala lasi talaba kaw niyal xadim lahu salaama sil bariyatil qadim ak raama rasulillahi min ilahi kawni qadimuhu wa abdallahi sëñ tubaa xam ngeen ne yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo ko tànn waaye nag nee na yàlla moo ma ko wax allamani rahmaana fi safina bi annani alxadimu sil madina nga xam ne kon man ahmadou bamba yàlla moo ma xamal ne ma yaay jëwriñ yaay xaadimu alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne moo ko yaa ko war a liggéeyal moo tax sëñ tubaa jóg nag ne man ahmadou bamba dana yell dana war dana jaadu man Ahmadou Bamba ma liggéeyal sallallahu alayhi wa liggéey boo xam ne kenn mësu ko ko liggéeyal ndax li tax mooy alayhi salaatu wasalaam dafay bàyyi ñëpp dikk tànn ma kon bu ma amee jom man Ahmadou Bamba danaa ko liggéeyal liggéey boo xam ne benn képp lay doon faraxtuhu bi xidamin la shaniya laha min al xidami laysat yi liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne daal benn képp lay doon daal di taxaw nag ne man Ahmadou Bamba liggéey bi ma liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam bis dana ñëw wala jamono soppeeku kenn dana taxaw daan ne waajuram wala maamam jëfal na sallallahu alayhi wa sallam comme li ma ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa daan ne kaay ma wax leen yéen ñi nga xam ne yéenay waajal loolu man zanna man zanna képp ku njort annahu ndaka moom moomee njort day yàkkuwul dana nekk abadan ba faw yurdihi di ko gërëmloo bi xidmati bada sëñ Tuubaa nee na na fayta sànnuhu bi anniyal xadim bi maa wanaa an mislihi kullu xadim dajji naa njorti ko ko sànni ko ca àll ba ne man Ahmadou Bamba képp man Ahmadou Bamba rek maay liggéey sallallahu alayhi wa sallam comme nam ko tànne man sànna ni xayral xadimul Mustafa fa inna ni aqdimuhu bi Mustafa waaye aqdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal muna wal minna man Ahmadou Bamba maay liggéeyal alayhi salaatu wa salaam ca nam ko tànne ba keroog may tabbi àjjana waaye yëmut ci loolu dafa wax na yow yàlla liggéey bi may liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee ba ëllëg yowmal xiyaam ba nga partagé sa jaam ñi ñii dem ajjana dem ajjana ñii dem sawara dem sawara yow sama borom maa ngi lay ñaan su boobaa nga bàyyi ma ma des ci wetu alayhi salatu wasalaam di ko liggéeyal wa jaalani bi jaahihi mi man yaqdimuhu fil janna loolu moo tax mu nekk xaadimu rusul moom sëñ Tuubaa waaye xoolal bi mu ne bëreet jëm ci liggéey boobu nga xam ne moom la ko sallallahu alayhi wa sallam sos sëñ Tuubaa la la wax dafa wax ne yow sama borom defal sama maqaama waj'al maqaami maqaamal murtada anashi fi xidmatin wa ka xazanin asin arabi yow sama borom li gën a gaaw ti suite laa bëgg nga def sama maqaama naa mel ni anas naa mel ni Kaab naa mel ni xazaan sunu borom ne ko loolu ak sóobu la sëñ Tuubaa daal di sóobu nag jaar ci yoon wi lil Mustafa al Karimi fii kullu sana alayya am daa xuntura mustaxsana dana yell ci man axmadu Bamba dana jaadu ci man Ahmadou Bamba ci at mi jot ma formé ay tagg yi gën a jekk tagg yi gën a rafet jëmee ko ca sallallahu alayhi wa sallam yenn tagg yi nekk hadiya ala man alayya wa lastu sadix lahu kulla aamin hadaya almadix lil mustapha lesi turam lahu salaati wa salaam ma imtu daaxi kullu aam rumtu min al mukarrami at bu jot man ahmadou bamba danaa tig liggéeyal la salaatu wasalaam ay tagg yoo xam ne yu bees tàq la àgg ci wax nag ne man ahmadou bamba tagg yi ma tagg rasulullahi nag léegi bor la nga xam ne sëñ tubaa léegi jógatul rek di tagg sallallahu alayhi wa salaam ci teeyu bakkanam waaye léegi bor la bu mu war a fay mat xu rasulul karimi bi stan jabi minal muharrami daynun li ila rajab moo tax mu wax ne salaatu sitta bi mat i sitta tatihi battama ihtisa i salaatu sitta bi mat i sitta mooy juróom wenn weer yi muharram safar rabiul awal rabiul sani jumada awal jumada sani rajab dama ci tagg alayhi salatu wasalaam rajab soban ramadan sawal su ne aqdasul hijja ma ciy julli ci salallahu alayhi wa salaam moo tax salaatu sitta bi matahi sitta tatihi batta ma itisa yi daal di ko joxoñ nag yow rasulullah daal di tàmbali xamle ko moom rasulullah daal ne ko anta yow alkarimu yaay ko tedd ki yow alayhi salaatu wasalaam yaay ki nga xam ne yow la ñëpp jublu seen ajo yaay ki nga xam ne yow ahmadou bamba yow rasulullah ku la won ginnaaw du texe yaay ki nga xam ne ku la won ginnaaw ab dof la ku réer la ku texe di la yaay ki nga xam ne ku la won ginnaaw ya rasulullahi adduna ak alaxira du ci am dara antal karimu waaye nag loolu lépp bu amee man ahmadou bamba anal xadimu damay nekk sa wet rek di la liggéeyal waaye liggéey bii dëxërët uddiimu amut yem waay amul liggéey fii yem fii liggéey fii yem fii waaye dëxërët mu day sax dak fii ko shana ci di ko tagg rek ak di ko woy loolu moo tax mbokk yi xam ngeen ni bu jamono neexee tey ba nit ñi fu ñu neex taxaw julli fu neex sikar fu neex wasifa am ñu jóg di tuddee seen bopp sopp na bii mbokk yi xoolal baat boobu ni mu ree xoolal sopp na bii nga gis koo xam ne day tudde boppam sopp na bii ba noppi nga ko gis ci soirée yi di ko gis mu dem stade di ko gis mu taxawaalu déedéet sopp na bii loolu maqaama la na ngay egg ci maqaama mahat mahabati yal muxtaara sayidina qubbil maaniya wal ahlila wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fii da unduhu ab abdan abdan xadiman lahu muskaana li sanada kooku mooy sopp na bi Cheikh Ahmadou Bamba xoolal mahat mahabati al muxtaara sa na muy bëgg gi ma bëgg sallallahu alayhi wa man Ahmadou Bamba far na ci sama xol bëgg koo moom adduna sëñ Tuubaa amul lenn àdduna loo xam ne man Ahmadou Bamba bëgg naa ko lépp la far waaye yëmul ci loolu far na ci sama xol man Ahmadou Bamba bëgg ak njaboot bëggatuma ay soxna sama lépp la bàyyi daan na dam mii sama deret wa ahli ak sama ñoñ wa awlaadi ak sama njaboot fii daa un duhu abdan xadiman duhu muskaana li sanada def naa ko njot yoo xam ne de jëm ci alayhi salaatu wasalaam kon koo xam ne rasulullahi dalaa ameloon bor boo ma gisee man Ahmadou Bamba jàppal sama yóbbu ma boo gisee sama doom jàppal yóbbu boo gisee sama njaboot jàppal yóbbu lépp daal man Ahmadou Bamba jox naa ko sallallahu alayhi wa sallam ak ci wax ne juttuluhul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alan man ahmadou bamba tey jii laa jox rasulullahi sama ruux tey laa jox rasulullahi sama jëmm tey laa jox rasulullahi samay waajur tey laa ko jox samay doom daal di mujj complet nag lépp mu jébbal ko sallallahu alayhi wa sallam jumlatu maali wal midaadi wal xalam hadiyatun lil mustafa babi niam loolu moo tax mu wax ne man ahmadou bamba li ma doon sàkku ci yàlla muy naa mel ni kaabu wala xazaan léegi saa may na ma ko saa daal nee na ma yow ba ma daal lii xuttama sax-saqa an ni danas surtout qadimal moustapha mislu anas léegi daal bu ñëwee ci alayhi salaatu wasalaam man ahmadou bamba maa fi jiitu anas waaye yëmul ci loolu de sëñ waa dafa mujj jéggi leen nag barra anil quduusu min kullu danas wa inda xayrul xalqi jaawastu anas nee na bu ñëmee ci alayhi salaatu wasalaam man ahmadou bamba léegi nekkuma difa yem ak anas nekkuma difa tolloo ak moom waaye léegi dama leen a jiitu nga xam ne léegi mu ñëmee ci alayhi salaatu wasalaam man ahmadou bamba maa fa jiitu anas raditu an il baaqi wa an xayr xalqihi wa fi matqihi jaawastu kaaban kaaban wa xazana kon gërëm loo na yàlla gërëmloo sallallahu alayhi wa sallam bu jëmee ci sallallahu alayhi wa sallam man ahmadou bamba maa fa jiitu anas waaye mbokk yi xam ngeen ni loolu seexul xadiim amee ko ci boppam liggéeyal sallallahu alayhi wa liggéey boobu waaye ci fan la ko jaaree muy ci tagg yi nga xam ne wax naa la ko léegi ci tagg xam ngeen ne am na ci boroom xam-xam yi ku ñu wax yusufu ibnu ismail an-nabhani nga xam ne mi ngi dëkkoon libaa àggoon na ci bu sëppee xalimaam ci daa rasulullahi alayhi salaam daf koy jox loxo anabahaani moomu bis dafa dugg xulwa daal di laaj yàlla borom subhanahu wa taala ne ko ndax yow yàlla tagg yii ma lay tagg am na ci àdduna benn jaam bu la ko mas a tagg nee na moom mooma feeñu ne ma ku ñu wax ahmadou bamba kenn jutul asakam ci taggam dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax tuuba nga nekk ca Guinée Conakry jóge woon foofa di dem makka di siyaari ji sallallahu alayhi wa sallam daal di jaar libaa ca nabahaani yi nabahaani yi laaj ko ne ko ana ahmadou bamba ne ko foo dëkk mu ne ko tuubaa mu ne ko tuubaa gan mu ne ko tuubaa ga nekk ca ginne ko nakiri ndax am na geneen tuubaa mu ne ko waaw gan la mu ne ko ga nekk sénégal ku fa nekk mu ne ko ahmadou bamba anamu mu ne ko tubaab yi dañ koy yóbbu nabahaani moo ko xamal ne ko ahmadou bamba moomu daa jaamu ji yàlla waaye dana dellusiwaat daan ne ko man day am naa àjjana ju leer naññ na jooju am yi ma ko ci tagg yi may tagg alayhi salaatu wasalaam am yi ma ko ci jaamu gi may jaamu yàlla maa ngi ko amee ci nangu gi ma nangul ahmadou bamba te gisuma ko naar boobu moo doon wax ne xawan njaareemu uluman lil illahi wal fadlu la yamun wal fadlu lil xayri mamnuunu xawal xadimu lasi law laahuma sujidat ala aljibaahi walam tuqara bihi nuunu inam ra am fatuhu almuxtaari min mudari wa fatuhu xaadimu rasul mahabun nee na njaareem day la moon a xam ak tedd nga ak ngëneel yàlla yoo xam ne amul ci benn dëkk daal de bu dul ko nag Cheikh Ahmadou moo mu nekk njaareem genn si jaara du am gënu jë te kon kenn du jàng alxuraan daal ne képp koo xam ne fekke nga jamono alayhi salaatu wasalaam raw la nga fekkee jamono Serigne Touba du yokkat ba ma raw la nee na perte nga nee na ku rasulullahi raw rek Serigne Touba raw la perte nga te loolu lan moo ko may Cheikhul Khadim muy tagg gi muy tagg sallallahu alayhi wa sallam ci xasaayid yi mbokk yi di loolu doy waar. kon ku am ku kenn amul nanga war a mel nu kenn melut sëñ Tuubaa moo jiitu ci alayhi salaatu wasalaam moo man ci alayhi salaatu wasalaam jëfal na ko lu ko kenn mës a jëfal rasulullah it jox ko lu ko kenn lu mës a jox kenn mu jaamoo borom bi subhanahu wa taala lu ko kenn mës a jaamoo borom bi subhanahu wa taala jox ko yit lu mës a jox kenn doy na ci rek entetanil jamia ak duna salabin wali taquudu su la waxta talabi li awsili lesi uridu wan faay biyal wara yaa muanayan an midfaay maxawta xadda durrali bil muntaqa wa quttali ma waqduhu sawi tuqa wa jëhtu lii maa la yasaalu ajaba fi abadin li saalixiina nujaba kon saa borom jox na ma loo xam ne mosu ko jox kenn yàlla waxtu woo xam ne am naa yittey borom bi jëm te moom la may soxla yàllaa ma koy wometal xuyuru rabbi ilaya sulibat wali bi la taxaruri xat yu si bat yu sibat kon mbokk yi nanu góorgóorlu bàyyi xel bu baax li nu doon muy doon ak taalibe muy loo xam ne wurus la ci ko ko xam waaye mën naa nekk xël ci ku ko xamul nan bàyyi xel loolu day mel ni mbokk yi wax nañ ko léegi bis bii nga xam ne bisu ndigal la tey bu ñu waxoon ne Cheikh Mouhamadul Mountakha mooy ñëw fii kon kenn du fi xaj kon yaakaar naa fii kenn du fi xaj waaye nag Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw fii waaye ndigal la moo fi nekk kon ku di ab murit war a jëfe ndigal bis bii war nga ca def loo man ak loo mënul léegi nag la sëñ Moussa Alima Gueye waxoon sëñ Tuubaa ne ko mujjug jamono de ñuy ñëw Mbàkke dañu lay nax mujjug jamono ñi ñëw mbakke dañu leen nax sëñ Tuubaa ne ko ana nuñ ma mën a naxee mu ne ko mbakke ñoom day dañuy mel ni ku yor peñe mburu boo xam ne daa bënn amul mburu sëñ Tuubaa ne ko sallaaw day bu boobee bu boobaa ma fay leen ci gooñu gerte goomut benn doom ma fay leen ci gooñu gerte goomut benn doom saa bu ñu àggee rek ci jii ma ndax sëñ Tuubaa ci ay fànn sëñ Tuubaa fayee ñu gooñu gerte goo xam ne boo ko xoolee doo am fekk benn doom te day mel loolu moo xew ci jamono bi nag ñu bari riir nañ jëm ci sëñ Tuubaa ñu bari di tuddoo sëñ Tuubaa ñu bari di woote woo sëñ Tuubaa waaye nag dese nañoo xam dëgg dëgg lay yoon waa dese nañoo xam kuy ànd ak sëñ Tuubaa nan la war a mel ak wan jikko la war a yor wan doxin la war a jaar te loolu lépp sëñ Tuubaa da ko jàngale sëñ tubaa doonut koo xam ne dafa mën ci boor bi bàyyi boor bi wala mu mën ci boor bi bàyyi boor bi sëñ Tuubaa dafa complet ci lépp léppam dafa mat amul benn xoos-xoos amul benn kirish léppam moo mat Seexul Xadiim léppam moo mat kon nañ xam ne taalibeb Sëñ Tuuba waru nekk n'importe qui taalibeb Sëñ Tuuba kenn waru koo daq jaamu yàlla kenn waru koo gën a bëgg yàlla kenn waru koo gën a bëgg sallallahu alayhi wa sallam te boo gisee ren jamono bi li xew lépp taalibe yi rek la sëriñ bay jaxat dafa wax ne sëñ Tuubaa moo sedd ab xol te dal am xel te guur yi gëtit te doy sëriñ sëpp ak yëfër yi kenn yëbbu ko sëñ Tuubaa kenn yëbbu ko waaye nag xam ngeen ne nun dañoo desee xam li nu Sëñ Tuubaa tànnal xoolal tey bu ñu laajoon tey ñu ëpp ci taalibe yi bu ñu la laajoon lan mooy al muridiya bi Sëñ Tuubaa woote xamuñu ko ñu ëpp ci murid yi bu ñu laajoon tey kan moo di ab murid xamuñu ko te Sëriñ Mbay Jaxate nee na murid dëgg yombul la yombay nga wax murid dëgg la te doo murid sëriñ Moussa Ka ne amaana kunnan muridun sadiqun fekk ne kooku mooy maridu saarex day bay di lekk du joxe hidaaya kookaay murid bi sàcc wóor na gaaya kon bari nañu tuddoo seen bopp ay murid fekk doonuñu ko waaye lan mooy ay murid al muridiya tey jëmmi muridiya mooy lan sëñ Tuubaa dafa wax ne hiya tariqatu suufiyatul hadiyatu ila llahi taala asasaha Cheikh Ahmadou Bamba ala al iman wal islam wal ihsan yoonu murid mooy yoon woo xam ne yoonu tasawuf la waaye day wammet jëm jaam bi jëmme ko ci borom bi subhanahu wa taala sëñ tubaa sos ko ci ñett yi muy iman gëm yàlla ak islaam ak ihsaan al iman dafa am juróomi ponk léegi rek bi may ñëw dama xalaat ne am na ñoo xam ne sax xàmmewuñu imaan ak islaam ak ihsaan te ñu bari léeg-léeg bërki dem wax naa ko benn waxtaan boo doon amal Pikine ma ne léegi xoolal iman juróomi ponk yi la am muy na ngay gëm yàlla gëm rasulullah gëm malaayika yi gëm ab dogal gëm yomal xiyaam waa léegi nan lan mën a ne ñun gëm nañ yàlla gëm rasulullah ñu fekk koo xam ne wala ñu fekk ñoo xam ne bis ba ñuy màggal di ko feetewoo kañ tey tudd donte ab nabi ab ab yonente la dañuy wax ne ña koy feetewoo dañuy wax ne kooku doomu yàlla la léegi ñun ñu ànd ak ñoom ca feet googu di taali sondeel di fel ay pétal di sañsa di dem baal fu nekk ñu fa dem ba noppi jàpp nañu ay jullit lan nan lañ ko doonee te ñu wax ne quatre-vingt-quinze pour cent fii ay musulman la kon mooy yoon suufee wi nga xam ne day wamme nit ki ci tasawuf imaan moo nekk noonu al islaam mooy nga fexe ba nekk dëgg-dëgg ab jullit di jëfe sa diine di julli di woor di natt asaka ndax bu niyal islam ala sa shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah iqamu salaat wa ita shakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayt waaye bi ci topp it nga nekk aji rafetal al ihsaan an taabudallah ka annaka tara fa in lam takun taraka fa huwa yaraaka nga jaamu yàlla ba xam ne yàlla yaa ngi koy gis te mu leer na ne yàlla boo ko gisul it yàlla moom mi ngi lay gis waaye boo noppee ñu ne la léegi lii de al muridiya kan mooy ab murid léegi kan mooy ab murid sëñ Tuubaa ne al al murid huwa almuminu almuslimu almuhsin allazi la yuridu siwa mardatillah fi kulli aqwalihi wa afaalihi wa tasarrufati sukunatan harakatan hubban wa bonda nga xam ne daal tey buñ la ko doon tënkal ci gàttal dañu la naan ab murid daal mooy koo xam ne bunt bu mu fëgg buñ ko tijjee ngërëmul yàlla rek la cay fekk isil muridu la yuridu abada xayrarahmanu xaysu xasada kon kooku mooy ab murid waa léegi ñaata nit ngay gis ñuy tuddoo sëñ Tuubaa di woote woon ay murit lan nga leen di fekk ci leneen te lépp la sëñ tubaa bañoon nag lépp am na soxna suñu ñëw sëriñ tubaa daal di wàcce doom ji doom ji di fo ci bagage sëriñ tubaa sëñ tubaa ne ko kii nga àndal lu muy def mu ne ko mbakke kii de xale la day fo sëñ tubaa ne ko sa law day bu fi fekkoon koy fo bu fi fekkoon koy fo mën naa fo waaye ahmadu fawut foofu lu ku mënta muñal ab xale bu ndaw buy raam muy focc ay bagage ndax ne na bàyyi mu kallaf nekk magum jëm mu xàmmee xam lépp ba noppi di fo ndax sëñ Tuubaa na nangul kooku te sëñ Tuubaa misaale ko ni ko ci côté yëpp ku ñu wax sëñ Maxtaar Binta Lo sëñ Tuubaa na ko ma wax ne ko Maxtaar Binta mu ne ko Mbakke mu ne ko mbooloo mu bari romb nañ ma di wëy Maxtaar mbooloo mu bari romb nañ ma di wëy daal ne ko mbooloo ma day doxuñu dañuy daw aw xel lañuy daw waaye sawaral leen jëm te duñ dëpp mukk mukk te tabbi ñu ca maxtaar mu ne ko mbakke mu ne ko lamay may jaaxal ma mooy sama tur wi ñuy tuddoo sama tur wi ñuy tuddoo kon ni nga ci jàngate ne bari na ñuy tuddoo sëñ Tuubaa fekk sawar leen jëm loolu moo taxan sëñ Tuubaa waxoon sëñ sëñ Xamsatu Jaxate ne ko wol ma Masamba keroog bi Seex Masamba ñëwee daa fekk sëñ Tuubaa jël ñaari loxo yi tal togge ko ci kaw bopp bi bi mu ne bi mu askee rek sëñ juba daal di wàcce bopp yi ne ko ma samba mu ne ko Mbàkke mu ne ko li ma andi woon jamono mat na ma samba li ma indi woon jamono mat na lu fi mat a wax lu fi mat a wax wax naa ko ba mu làggee ci sama làmmañ ngeen dégg lu ci mas a lu ci mas a bind bind naa ko ba mu lu ci mas a jëf jëf naa ko ba ci sama cër ngeen gis li ci des bind naa ko bàyyi fi bu ëllëgee ku dikk nekk ci leneen yaa ci nekk waaye Ahmadou Bamba nekku ca santaane wu ko waaye léegi xoolal tey bu ñaar yooyu wéyee tey dugal ci pàkk bi wala nga dugg ci Pikine nga laaj ñett yi laajal ñi nga xam ne ay murit lan yoonu murit at man la ko Sëñ Tuubaa sos ban dëkk la ko Sëñ Tuubaa sose ak ban weer la ko Sëñ Tuubaa woote te ñi ngi koy laaj duñ ko xam ñoom ñooy dem ba Europe ñu xam fa fukki sule fukki suyeer ak ñaar wala ñaar fukk ak ñett ak ñaar xam kenn ku nekk max ba muy fubal ak bit ba muy dugal ak na mu koy dugalee xam mbër yëpp ñaata mbër ñoo am xam mbër mu nekk ñaata combat am ak ñaata combat ci daan te mënoo xam yow yoonu murid wi nga xam ne ci nga nekk mënoo ne sëñ Tuubaa asas 1883 la ko sëñ Tuubaa woote xamoo ko xamoo ne sëñ Tuubaa alhijriya 1301 la sëñ woote yoonu murit xamoo ne sëñ Tuubaa Mbakke Kajoor la woote yoonu murit ci weeru koor ñaar fukki fan ak juróom-ñaar dëppook laylatul xadar ba ca suba te murid yi ñuy laaj loolu duñ ko xam ñoom ñooy dem xam lépp la ñuy xam lépp maanaam ci gàttal rek lépp la ñuy xam musicien boo leen laaj ñu xam ko mbërum dam moo leen laaj ñu xam ñaata combat la bi rek ñaata la ci daan xam sax nam ko daanee footballeur yi moom waxaali yi ko bit yépp la ñuy xam xam maire biteer xam maire suyeur lépp la ñuy xam mbokk yi kenn ku nekk la nga nekk dala war a ñor dara dala war a ñor ci tàmbaliment bi dama waxoon ne sëñ Tuubaa nee na sëñ Xamsatu Jaxate Xamsatu sama bëgg xëjut àdduna Xamsatu sama bëgg xëjul àdduna la sëñ Tuubaa wax léegi bu fekkee ne bëgguk sëñ tubaa xëjul àdduna kon taalibeb sëñ Tuubaa bi ci àdduna mënoo defal sëñ Tuubaa lenn loo def ci àdduna rek sa bopp nga ko defal boo jàngee xasaa yit sa bopp nga ko defal ndax na ngay jàng yit di ci amu yiw di ci amu yool di ci tex dara mënoo ko defal sëñ Tuubaa waaye sëñ Tuubaa nee na sa Hamsatu Jaxate li ma bëgg ngeen defal ma ko bu léegi yomal xiyaam ba ma yàlla saa borom joxee drapeau bi ne ma Ahmadou Bamba jóg a ràmm nee na taalibe yi am sañ-sañu jóg bañ a ma kooku doon mbirum làmb de taxaw di ràmmul sëñ Tuubaa du doon at footballeur déedéet du doon ab taxawalukat du doon koo xam ne soirée rek musique ak làmb ak lépp lay boole ba noppi di ko tudd sëñ Tuubaa déedéet xol bu sëñ Tuubaa nekk sax loolu leen da caa mënta nekk benn xol rek nga yore benn xol nga bëgg ca def mbërum làmb bëgg ca def jigéen bëgg ca def xaalis booba xol nan la ci sëñ Tuubaa di toogee nan nan nan delloowaat sëñ Tuubaa ngor nan delloowaat sëñ Tuubaa ngor na nag rawatina nag ñi ñuy tuddee ay jàngkatu xasaayit ak waxtaankati sëriñ Tuubaa yi dama waxoon sama benn xarit sëñ Abib Guèye maa ngi ko ko waxee woon ca Mbadiane Thiada benn conférence bu amoon foofa ma ne ko ñépp a war a rus sëñ Tuubaa waaye jàngkatu xasaayit ak waxtaankatu sëñ Tuubaa war nañoo rus sëñ Tuubaa niñ ko war a ruse mooy yow kër goo dugg ñu berneel la lan la mat laa wut lu neex di la ko jox nga xam ne boo bëggee jàpp sax ab meer ngay gis mooy daw wutal la ak sata la la nga jàpp ab meer koo xam ne mat na la yaay ma ne ko léegi kooku taalib Sëriñ Tuubaa la de lan la nekk jànkatu xasaayit léegi boo génnee fii rek da nga gis benn waay boo xam ne jëmam day doy waar lool Sëriñ Tuubaa lay tuddoo ma ne léegi le kii nii lan la defar suñ Tuubaa ba Sëriñ Tuubaa bàyyi ko fii kii lan la defal Sëriñ Tuubaa ba bàyyi ko fii moo tax ma ne kon ku am jom te am ngor war ngaa delloo sëñ tubaa njukkal war ngaa rus sëñ tubaa war nañoo rus sëñ tubaa de te wallaahi laasim nii ñuy toppee sëñ tubaa jamono bii wuute na lool ak ni ko mag ngi daan toppee te fii ngay gis benn waay boo xam ne benn xasiida lay mën a duruus benn xasiida bu jaaree fii di sinkaluku walla muy woote daan ne mag ñi maa leen raw fii ngay dégg benn benn benn waay boo xam ne nee na mag ñi ànd nag sëñ tubaa maa leen raw maa leen raw maa leen raw mbokk yi loolu gàcce la sax ñii àndoon ak Serigne Touba Seexul Xadiim kon loolu mooy sëñ loolu mooy sëñ Touba xam nga man sëñ gànna sëñ gànna misre damaa waxoon ne ma sëñ Cheikh ma ne ko Mbàkke mooy li li li mbokk mi jëloon micro bi micro bi doon wax ne ma sëñ Cheikh ma ne ko Mbakke mu ne ma sëñ Cheikh ma ne Mbakke mu ne ma na nga ba boole waxtaane sëñ Touba ak di xëy di liggéey ne ma bari na ñoo xam ne bu ñu waree waxtaane wala ñu war a jàngi bàyyi nañu ab bor wala ab sànce boo xam ne yaakaaruñ ko ci lenn lu bis boobu ñuy dem daan ne ko kooko bu demee war a waxtaan du wax dëgg kooko bu demee war a waxtaan du wax dëgg lu la nekk ci poose rek lay xool pour mu ñëw waaye nag bu la leeree na yow nit ñi li ñu lay jox am nga ci looy sant yàlla am nga ci dara am nga ci looy sant yàlla kon xooloo lu nekk ci seen i poos waaye léegi tuddoo gi sëñ Tuubaa gi dafa bari tuddoo gi sëñ Tuubaa dafa bari ci fànn yépp mbokk yi léegi ngay gis taalibeb sëñ tubaa boo xam ne day jóg di liggéey taalibeb sëñ Tuubaa nga xam ne fii ngay gis koo xam ne day nekk ci palaasam di liggéey ameelul kenn ak ameelul kenn bor yow nga jóg laqatu jaar ci ginnaaw dem ci ab sëriñ ne jox ko turu ndeyam ak turu baayam ne ko taqaleel ma ko ak liggéey ba mu nekk mu xëy bàyyi ab liggéeyam ba noppi yow boo xëyee romb ko mu ne la murit noo def nga ne ko man yi nan nga doone ab murit te yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na ab julit dëgg mooy koo xam ne julit yépp mucc nañ ci lori loxoom ak lori làmmañam al muslim man zalima al muslimuuna bi yadihi wa lisaanihi kon day damay wax ne bépp taalibe boo xam ne day yàqal mbokkam taalibeem wala mu koy jëw wala mu yàq alalam wala mu muy yàq ab deram kooku du ab taalibe kooku du ab taalibeb Sëriñ Tuubaa dal dafa war a nekk modèle boo xam ne ku la gis day roy ci yow Sëriñ Tuubaa daa waxoon sëñ Maxtaar Binta ne ko Maxtaar Binta mu ne ko Mbakke mu ne ko ñaara ngi nii Maxtaar Binta mu ne ko Mbakke mu ne ko ñaara ngi nii kenn ki bu ko yëgee ak bu ko yëgul jàpp naa ko te duutuma ko bàyyi keneen ki bu ko yëgee ak bu ko bàyyi naa ko te duutuma ko jàpp daal ne ko Maxtaar mu ne ko Mbakke mu ne ko koo xam ne jëmm daa jëm si ci man Ahmadou Bamba di ma siyaare si wala mu war a ñëw jébbalu ci man daal di dajeeg jëmm xemmep kooka ngir jëmmam ji rafet ak ab taaram ak melokaanam mu rafet ba tax mu yàkkamtee ak si ci man maxtaar kooku bu ko yëgee ak bu ko yëgul man Ahmadou Bamba jàpp naa ko te dul ma ko bàyyi daal ko maxtaar mu ne ko mbakke mu ne ko keneen ki mooy koo xam ne saa bu jëmm jógee ngir jëm si ci man Ahmadou Bamba daal di dajeeg moom daal di xol jëmmam ngir melokaanam mu ñaaw ak jikkoom yu ñaaw ba tax mu jàpp ne taalibe yi sëñ yépp nii lañ mel maxtaar kooku bu ko yëgee ak bu ko yëgul bàyyi naa ko te ma ko jàpp bàyyi naa ko te ma ko jàpp kon taalibe sëñ Tuubaa lépp lu xaraam na nga ko waroon ginnaaw lépp lu xaraam démb wax naa ko Pikine nee naa tey li lislaam tere lépp ci góor ñi tere ko lépp ci jigéen ñi tey ku xëyeen bàyyi ko ñu ne na nga dof tey boo giseen fii benn jigéen mu jaar fii daal di muuru muur kanamam lépp ba nga xam ne xar kanamam rek mooy feeñ ni ko lislaam digle ak i tënki loxoom bu fi jaaraatee ginnaaw suba ñu ne kii daa def wérut yàlla bu mu doonoon koo miin nag koo xam ne xam nga bu fekkee koo xam ne xamoo ko sax garaawut waaye bu doonee koo miin koo xam ne danga naan ko fekke fii muy sol jiin di sol comme comme nii di léttu mees nga xëye xëy gis ko mu saase dañ naan diw def na lay wax duñ xalaat ne kii daa nekkan ci leneen tuub na bàyyi na lam nekkan mi ci yàlla déedéet waaye dañaan rek dof na tey xoolal góor ñi ñu gën a favoriser góor ñi ñu gën a favoriser mooy góor ñi nga xam ne dañuy takk jaaroo di takk ay ceen boole ñeenti ceen ci sa baat te sëriñ Serigne Saliou Mbacké waxoon na ne ceen day ñett ñii ñoo koy takk ab xaj ak jigéen ak ku nar a dem sawara ceen ci baat ak bu mu mën a doon léeg-léeg nga gis benn waay boo xam ne danaan man takk naa ceen gàllaaj la gàllaaj doo wut gàllaaj bi def ko neneen nu ne la ñuy muuroo suñ Tuubaa nu ne kon noo ngi leen di jégalu kon day mel ni waxtu wi eh, jot na noo ngi jégalu mbokk yi di leen tuubal